الشكل البناتي حولناه بالنصوص لازم القياس ديال القطع شنو هو كما الفيديو فننتقي أبواب كل مال تجد بالدرهم والدينار أي واحد ni ci ما في جنة ci gën a jàpp ci li فمي لشخص moom moo di famille riwaaya yi ma ci dégg yëpp boobu moom mooy bi ma ci gën a jàpp man mooy bi ma ci gën a wóoru juróom-ñaari ci waqaf alquran juróom-ñaari tiddale yooyu la ne ku koy def ku koy wàq ci famille di soq li soqin lañ ko tënkee xam ngeen ko de famille soqin famille soqin fatiha maida yunus lisra euh, wasaafaati xaaf al quraan al majid juróom-ñaari kii jeex na koo koo xam ne kii da nga ko wàccee alquran ci bi xase bi tilka riwaaya yi mu digle ci xasida boobu yi mu wax ci xasida gi yëpp tajudu bi dirham wa dinaar yi xam nga fi kul man la tadabbara bi kan sayda has tabarat yu qaran ala alajati bi kan sayda al khala yu tum lam na ka zawjati ila akhiri yi ci wax yëpp ayu muhajir fala yakun munsafilan wala khaybun wala munsafila ila akhiri yu bari daal la ci wax yooyu yëpp ñu ngi ci boo dee def waqaf ci eh, taxaw taxawluwaay yooyu ak tàmbaliwaay yooyu loolu daal mooy lim ci lim ci dégg boobu lañ ci mën a dégg nga jàpp am na ñu wax eh, mel ne eh, sabul masaani am ñoo xam ne xam nga sabul am na ñoo xam ne teg nañ ko fatiha ak yëpp waaye bii daal ci ñi ma ko déggee ak ñi ma ko jële moom laa ci gën a dër loolu mu di famille di sawtu boobu beneen am na beneen laaj am na taxawlu foofu waaw mm-hmm. waaw mu ne man waaw kañ waaw lam yokk bala waaw Mm-hmm. dese naa dégg tuuti li mu wax. mën nga waxaat ko. waaw waaw waaw. waaw waaw waxaatal du nga mujj wax juróom-ñaar yooyu. maanaam sama ndax. waaw. ma ne ma ne sa jur yi dafa dafa sama ndax sama ndax yi ak rabu. kii naa waaw. sa jur yi dafa xam nga ci. wedd naa ah. تدبرا تنزل تبر léegi nag ci biir boo demee ci biir. li tax xanaa wax yooyu. waaye dëkk wu ànd اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها ومن ومن لم يتلوها لن يقبلها ما نعم ستروا نيارة لي موي لي خمنا دال موتاخ لول مولو كو ديغ دال نانكو مان مولو مولو كو جاب ومن لم يتلوها لم لم لم يقبلها لن تقبلها waaw est-ce que am na xam ngeen lenn loo xam ne bu ngeen ko jàng boo boo dee wut aajo rek boo ko jàng duñ ko nangu. mu rek daal daal di tàggat. mën naa jël ko. waaw. waaw man de xam naa ne. ay verset yu bari moom laa ci dégg samul masaal yi boo bokk faatiha ci bopp moom yooyu man nag sama bopp man daal wax sama mari bopp man li ma ko gën a jiiñ moo di moo di moo di euh, ci euh, famille li sooxin boobu moom laa sama kii rek daal waaw boo amee beneen question rek nañ ko yàgg nañ koy wër di làmb rek yàlla ndax dimbal mën na noo laa biir ñu nanoo dimbale la mu doon mel ni sabul masaani ak ñoo xam ne sabul am na ñoo xam ne teg nañ ko fatiha ak yëpp waaye lii daal ci ñi ma ko déggee ak ci ñi ma ko jëlee moom laa ci gën a déerloo mu di famille di Shawqi boobu beneen am na beneen laaj am taxawlu foofu waaw dé desalaat dégg tuuti li mu wax waaw waaw waxaatal bi mujj wax juróom-ñaar yooyu kulli naar waaw. dégg naa Sadabara. sant yi daal di sabar. léegi nag ci biir modèle bi. li tax na wax yooyu. waaye dëkk bu àgg ko mën a am. mu ne. Mhm. mu ne. waaw. waaw. Mhm. waaw. waaw. Mhm. maanaam wa man lam yatluha lam yuqbala maanaam safaru ñaareel bi mooy li nga xam ne daal moo tax loolu mun loo koo dégg daal na nga ko maanaam mun loo mun loo koo jàpp wa man lam yatluha lam lam lam yuqbala lam tuqbala waaw est ce que am na xam ngeen lenn loo xam ne bu ngeen ko jàng boo boo dee wut aajo rek boo ko jàng duñ ko nangu. mooy wax bu mu doon rek daal mooy wax. ñu àggal ko. waaw. Hmm, hmm, hmm, waaw man xam naa ne ay verset yu bari moom laa ci dégg sabul masaal yi boo bokk faatiha ci bopp moom yooyu man nag sama bopp man daal la mani bopp man li ma ko gën a jiiñ moo di moo di moo di uh, ci xam yi di sooxin boobu moom laa ci sama kii rek daal waaw boo amee beneen question rek nañ ko yàgg nañ koy wër di làmb rek yàlla ndax dimbal mën na noo laa biir ñu nanoo dimbale rek ba mu xam la mu doon bu njëkk bi dafa ne iza katabtu ibtasamal misbaahu